dal leen nag jàmm si xibaar yi lëmbe réew mi fii si Gambian Talents TV fes si boppi xibaar yi euh, ki jiite parti biñ gën a xamee si APRC moom nag ekkati na ay kàddoom euh, di wax ne ne euh, du wane gestuwaayam si ndaw yi nga xamante ne ni ñu ngi naa delloo si fii si Gambia bi buñ gannaaw buñ jógee bàyyeekoo fële sa bitim réew ba tey it GAP parti biñ gën a xamee si GAP muy Gambia Action Party gannaaw bi nga xam ne nekk na parti bu ees moom nag mu ngi door am ab ndaje bi nga xamantene ni mu ko def ak euh, presse bi manam taskati xibaar yi euh, ba tayit euh, fessi bopi si boppi xibaar yi yëngu ci walu mbay gi ñom nak ñu ngi ikiti seen manam di complain di wax ne sonna neen torop ak kan moy jëndal li nga xamantene ni mom moy seen gerte yi ñu gi xamé ci Gambia Gambia Student Union muy kurel muy mbotay bi nga xamné ni ñu ko sos fële sa réewu euh, Russia euh, ñoom nag ñu indi ay wéccute euh, gannaaw bu ñu jotee ci xibaar yi ni mbokk yi ngeen taaxee lu ñu daal di yaatal xibaar yi. kon niñ ko euh, fësalee si boppi xibaari euh, parti leader biñ gën a xamee si APRC parti leader euh, ñu gën ko xamee si bakari Tombong Jata, moom nag mooy def ab gestuwaay maanaam ab review si xale yi nga xamante ne ni maanaam ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen a ñu ngi leen a indi si biir réew mi gannaaw bu gaay nekkee woon fële sa biir Europe moom nag wax na yi ni maanaam gaaral na ay waxam gannaaw bu mu ootee taskati xibaari Felesa Talinding ah, moom nag buñ sukkandikoo si ay waxam ah, wax ndaje moom nag ah, mu ko defoon pour jotal di xibaar yi nga xamante ne nii nguur gi war na see gëstuwaat pour seet leeral ba tey it buñ sukkandikoo si kàddoom moom mi nga xamante ne nii moom mooy Fabakary Tombong Jatta di parti leader APRC moom nag mooy oo nguur gi nguuri Gambia gi pour ñu gëstuwaat gën a pour ñu gëstuwaat déportation maanaam ndaw yi jëlee bitim réew di leen indiwaat si Gambie bii nii ah, parce que nag ah, moom mi nga xamante na ni moom mooy APRC ah, leader bi wax na ne ne maanaam tuumal na government bi ne ñoom ñoo daal di signé agreement boobu maanaam d'accord boobu noonu ñoom ak Europe pour ñu mun a delloo si ndaw yi Gambie yi ñu ñëpp si waat seen biir réew moom nag Fabakary Tombong Jatta wax na ne ne gannaaw bi nga xamante na ni nguur gu fi nekkoon nekk na fi ñu fa doon liggéey gars yi bitim waye manam dañ leen téré pour ñu ñëw seen country seen seen réew euh, gannaaw buñ agreement bi ni pour ñu mëna délo ci euh, ndawi Gambia yi nekk fofu non sa biir Europe mbate gambie yi nekk fofu non sa biir Europe ñu délo ci leen fi si biir réew mi euh, mo nak buñ ko ci ay cadeau mom wax na ne ne nguur bi fi nekkon mom daf ko daal di dàqalu set ne mom du manam sign signé waye tamit wax na né nguuri Adama Baro bi ñom buñ ñëwé nak doon dem si agreement bu non manam den dem ci d'accord gogou non pour ñu mëna signé euh, lool non bañ mëna délo ci ndawi réew mi fi ni ci biir réew mi buñ sukkande ko ci ay cardom am mom di fa tam tomam jaata ah, mom nak wax na ne ne euh, nguur gi ñu ko sayn euh, pour rek bugga ñom ñu am fofu non yoon bu ñi awé ba mëna dugga fofu sa bitim réew buñ sukkande ko ci ay cardom am ah, nag gaaral na ne nguur gi ñom ñoo sayn li nga xamanteni ni mom moy deportation bi manam di délo ci ndawi réew mi fi ci réew mi gannaaw bu gaay nekkee woon euh, bitim réew euh, pour rek euh, ñu mun a am yoon gannaaw bi nga xamante ne nii ñoom itamit bugg neen faa nekk bugg nañoo dem sa bitim réew buñ sukkandikoo si ay kàddoom moom Bakary Tombong moom nag mu ngi oo Gambien bi Gambie bi yëpp maanaam ñu nekk si Gambie bi yëpp pour ñu wax ak ñi nga xamante ne nii ñoom nguur gi pour ñu mun a jël seen matu matuwaay ba gestu déportation bi ñuy def nii maanaam di delloo si ndaw yi nii ah, moom nag ah, bu ñu sukkandekoo si ay kàddoom wax na ne APRC gouvernement bu fi nekkoon muy nguur gi fi nekkoon ah, dafa dàqal woon loolu ba mu set wécc moom nag ba tey it si biir ndaje mi nga xam ne dajale na taskati xibaar yi moom Fabakary Tombong Jatta sànni na ay kàddoom si li nga xamante ne ni moom mooy Sénégal maanaam bridge boobu noonu ñoom ñu tuddee Sénégambia bu ñu inauguré bu yàggut mu ngi dooree woon si format parti bi nga xamante ne ni moom moo fi nekkee si APRC Uh, ba muy APRC uh, ba tey uh, it buñ sukkandikoo si ay kàddoom mom nak ci ndaje bobu non wax na ne ni nguri APRC ñom nak ñom ñoo sos li nga xamantene ni mom moy University of the Gambia ci 19 atum 1999 noko gay sos ba tey it um, gaay ngi tabax ay school manam ay jangukay si place yu bari fi si bir rew mi buñ ko ci ay kàddoom moom Fabakary Tombong Jatta moom moo ko daaral di moom moo ko Euh, ba tey it euh, moom Fabakary Tombong Jatta si ndaje bii nii euh, wax na leen ne kuréel ñi nga xamee si TRRC muy turu Reconciliation and Reparation Commission moom nag mu ngeen laajte lu tax ñu war a start si at bi ñu gën a xamee 1994 July ba pare include duñ maanaam boole wuñ si human right violation di torox torox tànge doomi Adama Ndiaye yi nga xamante ne nii PPP government bi ñoom ñoo ko fi def maanaam nguur gu fi kon balaa APRC euh, ñoom ñoo defoon ñaawteef yooyu noonu euh, ba tey wax na ne ne Ah, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ah, PPP ah, bone neen ay rey nit maanaam faat bakken si 1981 coup de d'état bi nga xamante ne ni amoon na fi ba tey it buñ sukkandikoo si ay kàddoom wax na ne am na ñu bëri ñi nga xamante ne ni jànguñ maanaam illettré leen moom Fabakary Tombong Jatta moom moo gaaral kàddu yi nii buñ si ay kàddoom suñ naataango di Foreign Newspaper ñoom ñoo fesal bi xibaar it wéyeg yéen xibaar yu lëmbee réew mi euh, ngeen koo déglu fii si Gambian Talents TV euh, ñu ngi gën a xamee si euh, Gambia Students Union maanaam muy kuréel gi nga xamante ne nii ay ndawi Gambia yuy jànge foofu sa diwaanu Russia ñoom ñoo ko daal di sos pour rek. indi ay wecci wecci ah, ah, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy student union bi di kuréel boobu noonu ah, ñoom nag wax nañ ne bëgg nañoo lëkkaloo ak lii di nguuri Gambia bañ fi mun a indi ay weccute gannaaw bu gars yi waxee ne seen kuréel boobu noonu mu ngi am ñu ko ñu ko sos yëpp ay ndawi Gambia leen ñi nga xamante ne ñu ngi study foofu noonu sa réewu Russia sa daara ju mag ji ñu gën a xamee si seen université yi université yi nga xamante ni bokkul ah, ñoom nag ñoo daal di ñëw daal di sos li nga xamante ne nii moom mooy student union bi ah, te student union bi nag nekk na kuréel goo xamante ne ni ah, moom la gaay xàmmale ko foofu sa réewul Russia ba tax na it wax nañ ne student union bi nii kuréel gi nga xamante ne dañ ko sos pour yombalal ndawi Gambia yi nga xamante ne nii dem bugg a dem jàngi foofu noonu sa diwaan si réewu Russia bañ mën a am seen luñ soxla yépp pour dem foofu noonu lu muy laaj Euh, ba tey it euh, wax nañ ne dinañ lëkkaloo euh, li nga xamante ne ni moom mooy nguuru Russie ak nguuru Gambia ba nga xamante na ni ñaari réew yi seen diggante dina ratax. point newspaper ñoom ñoo taatal xibaar bi ah, wéyeg yéen si xibaar yi lëmba réew mi ah, ba tey it parti bi ngeen a xamee si ah, GAP ñu gën koo xamee si Gambia Action Party muy parti bi nga xamante ne nii ñu ngi ñëw ees fii nii sa réew si biir réew mi ba tey jiite ko di Moussa bacc Bachili moom nag moo oote ab ndaje ndaje gi nga xamante ne nii mu fa dajale ab ay taskati xibaar euh, bu mu dajalee bu mu ootee gannaaw bu mu ootee ndaje bi nii fële sa Q City conference hall bi euh, moom nag euh, génne na ay kàddoom wan wax nañu parteem bi lan la gaay fas yéene ñoo def fii si biir réew mi moom Bachelet nag ekkiti na ay kàddoom gaaral ko wax si kaaraange réew mi na ne ne kaaraange ñun ñëpp xam ne ne réew mi dafa ñàkk réew mi ñu si bëri si tax maanaam si ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy fay ay lempo euh, si loolu la ñuy euh, ba tey it euh, moom wax na yëg na li nga xamante ne nii moom mooy ñàkku réew mi fii si biir Gambia ba tey it dafa taxawal maanaam partem bi bu dina daal di def num lu fi li nga xamante ne ni moom mooy ñàkk bi si réew mi ba tey ku nekk dëkk si dëkkin anam bu nga xamante ne nii ñëpp dinañ si mun a Euh, nekk euh, ba tey it ci biir euh, press conference boobu noonu maanaam dajale ay taskati xibaar moom ni Bathily jiite parti boobu noonu di GAP Gambia Action Party moom nag wax na si wàllu li nga xamante ne moom mooy wérgu yaram gi moom nag buñ sukkandikoo si ay kàddoom wax na ne ne gouvernement am bii di GAP dinañ def seen matuwaay pour indi li nga xamante ne nii moom mooy ay garab ba pare it dinañ defar li nga xamante ne nii moom mooy ay storage maanaam néegu dën denceekaay yi nga xamante ne nii ah, dinañ ko décentraliser dinañ ko tasaare si réew ba nga xamante ne nii ah, garab. garab du ñàkk si réew mi buñ sukkandikoo si ay kàddoom moom nag loolu la daal di gaaral ah, ba tey it ah, yokk na si loolu mu dina taxawal ab ah, factory yi nga xamante ne nii dinañ mun a liggéey li nga xamante ne nii moom mooy traditionnel maanaam moom mooy garabi cosaan yi ba nga xamante ne nii askan wi dina si mun a njëriñoo ba tey it si ab si ndaje boobu noonu moom nag di bàccali wax na si li nga xamante ne nii moom mooy waa wàllum mbay ah, ba tey ah, wax na ne ni xam na ne Gambia bi ah, ñu ngi si Gambia boo xamante na ni dafa am torop su ñëwee si wàllum mbay ba tey wax na ne ne faama yi. maanaam ñuy yëngu si wàllu bay bi amuñ li nga xamante ne ni moom mooy ku leen jàppale ah, yàkkaneen li nga xamante ne ni moom mooy ay jiwu ah, te it ba tey it ah, gars indee seeni i produit maanaam buñ daal di jiyee ba góob ñoom nag dañuy daal di gis ku jënd seen loolu bokk na si ñàkk dimbale bu mu bu muy wax noonu moom bàcc li moom moo gaaral loolu noonu buñ sukkandikoo si Bathily moom nag euh, wax na ne ne wax na si wàllum njàng mi fii si biir réew mi nga gëstu gannaaw nga seet euh, li nga xamante ne ni moom mooy euh, grade maanaam fi nga xamante ne ni foofu la jàng school maanaam grade 1 ba 12 moom nag wax na ne ne boo gëstoo resource last year maanaam student yi jàng taalibe yi lu ngay génnee last year ne daara yooyu noonu luñ génnee noonu baaxut ba tey wax na ne ne moom. partem bi bu taxawee euh, dina daal di euh, def matuwaayam def lu mun euh, ba nga xamante ne nii dina indi anami jàngukaay fii si biir réew mi ba nga xamante ne nii loolu yëpp dinañ ko fi génne moom di Bathily moom moo daara moom moo gaar kàddu yi gannaaw bu mu dajalee ay tas suñuy naataango di Foroyaa newspaper ñoom ñoo taatal xibaar yi si wàllu mbay gi euh, gannaaw bi nga xamante na ni euh, ñoom euh, suñ demee ba seen place jënd ak jaay gi maanaam fu ñuy jëndee ka jaay ñoom nag wax ne na ni seen gerte yi maanaam gerte yu gaay yi jiwoon gaay buñ ko daal di peesee daal duñ si dee am benn xaalis koo jox ba tey dañuy daal di lebalaatee nit ñi gannaaw bi nga xamante ne ni kenn si fi kenn si baykat yi moom moo wax loolu noonu. Euh, ba tey it euh, ñoom gars yi euh, leen nguur gi pour wax ne ne nguur gi dañ war a jël seen jafe-jafe yu gars yi jànkuwanteel nii ñu jël ko taxaw si temm ba nga xamante ne nii ñoom dineen mun a li nga xamante ne moom la gars yi di at bu nekk ba tey it wax na ne wax nañ ne depuis nguur gu bees bi bu mu ñëwee yu gars yi di jànkuwante ñoom nag ba tey ñu ngi laajte ne ñoom naka la gaa yi di génnee si li nga xamante ne ni moom mooy ñàkk. Euh, gannaaw bi nga xamee ni kenn nekkul di jënd lu gaay di jaay maanaam duñ si dee indi ay xaalis duñ si dee am ay xaalis euh, gannaaw buñ déglooyee nag euh, li nga xamante ne ni moom leen wax mbaykat yi nga xamante ne ni ñu ngi nekk foofu sa baara kerawaan ak li nga xamante ne ni moom mooy kawur ba tey it ki nga gën a xamee si Seko manager bi maanaam ki nga xamante ne ni moom moo jiitee si wàllu jënd ak jaay bi moom nag wax na ne ne gaay gëj nañu am xaalis depuis si atum tuta 2018 uh, si weeru décembre uh, moom nag wax na ne depuis boobu noonu la gars yi gëj a am uh, li nga xamante ne nii moom mooy xaalis waaye ba tey it buñ sukkandikoo si ay kàddoom moom nag wax na ne ne joxoon leen ko xaalis xaalis bi nga xamante ne nii tollale na si li nga xamante ne nii moom mooy fukki ñeent fukki tonni gerte pour rek gaa yi ñu mun a jënd yeneen yi ba tey it ñu déposit maanaam ñu dugal denc li si des foofu waaye ba tey wax na ne nii moom depuis boobu noonu la daal di gëj téye li nga xamante ne ni moom mooy xaalis ah, ba tey buñ sukkandikoo si ay kàddoom wax na ne ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat yi ñoom am neen wareef euh, ba tey it euh, ñoom ñu ngi daal di leble lool na si juróom fukki toni gerte ba nga xamante ne depuis bu saison bi it wax na ne ne loolu noonu daal di nañ ko dugal si extra tonnes yi nga xamante ne ni moom la gaay desaroon waaye ba tey it wax na ne ni moom ba tey jëlagut maanaam téyegut benn xaalis. ñu yëngu si wàllum mbéy gi yëpp euh, ñu ngi daal di jooy maanaam ñu ngi yuuxu euh, di wax na ne kan mooy jënd seeni gerte yi euh, loolu la gars yi nekk di wax ba ci foree newspaper ñoom ñoo fisal xibaar te it si biir xibaar na be bërëb boo xamante ne nii moom daa dafa daal di lakk maanaam dafa daal di lakk ba jeex takk mu nekk fële ne sa duwaanu Tanje ba tey it appartement boobu noonu maanaam dëkkuwaay boobu noonu. nekk foofu noonu sa Kombo South district euh, ñoom daf moom nag dafa daal di lakka ba jeex tàkk euh, si lundi boobu noonu gannaaw bi nga xamee lii am na euh, ba tey it buñ sukkandikoo si xibaar yi wax ne ne accident bi nag bu mu xewee Euh, suñ sukkandikoo si kàddu ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk foofu noonu euh, wax nañ ne xaalis lu si toll ni ninety thousand si euh, moom moo si dal moom moo si yàqu ak tamit yeneen bagages yi nga xamante ne ni ñu a xamee si maam jaara Dramé moom nag mi nga xamante ne ni ab baykat la teyit moom moom moom kër googu noonu moom nag wax na ne ni ab lakka bi ni mu ngi mu ngi commencé si ñetti waxtu si ngoon euh, gannaaw bi nga xamante ne ni moom demoon liggéey fële ne la si gardinam bi euh, waaye it ba tey si ay kàddoom lu wax mu fa demoon si euh, naakoy maanaam si gardinam bi pour dem roosee nga xamante ne ni moom mooy gardinam bi waaye ba tey it dañ koo kool ne ko sa kër baa ngee lakka waaye bala moo àgga si kër gi mu gis dëkkandooram yi ñu ngi daal daw pour root ndox rek pour daal di fay safara boobu boobu noonu ah, waaye ba tey it ah, moom it wax na ne ne mu ngi téyewoon xaalis ah, xaalis boo xamante ne ni moom ko xaalis boo xamante ne ni moomut ko waaye xaalis boobu noonu yëpp a jotoon lakka foofu noonu si safara bi maam jaara nag wax na ne ne dara génn li nga xamante ne ni moom mooy kër googu ba tey it moom mënta explain li nga xamante ne ni moom mooy lakka bi naka la xewee waaye ki ngeen a xamee si Lamin FS Ah, moom nag mi nga xamante ne ni doom la si maam jaara ah, moom nag wax na ne ni ah, yaayam dafay dunda si ñaxam yaayam nekk na koo xamante ne ni dafa suufel bopp gannaaw bu gars yi amut ki leen jàppale moom nag mu ngi wax ne ne xamul ndax gars yi dinañ daal di mun a tabaxaat seen kër googu noonu ba ñu mun faa dëkka waaye ba tey it Dramé family bi ñoom nag ñu ngi oo ñi nga xamante ne ni ñoom la yàlla may si réew mi ak nguur gi ak mbootaay yi nga xamante xamante ne nii nekkuñ di yëngatu si wàllum nguur gi ak compagnie yi fii si biir dëkk bi pour ñu mun leen a jàppale ah, ba tey it ah, ku bëgg jàppale Dramé family bi nga xamante ne ni ñoom ñoo lakkale mun nga leen a call 9740558 wala ngeen call leen si 7044889 ah, Foroyaa newspaper ñoom ñoo fisal bi di xibaar si xibaar yi lëmbee réew mi ki gën a xamee si minister of tourism ak culture muy Amat Ba moom nag moom moo ekkati kàddoom di tontu ki nga xamantene ni mom moy president ni Gambia ba Association di kuréel gi nga xamantene ñom ñi yëngatu ci walu uh, atekay uh, ñom nak ñom ñoko sos uh, ki di amad ba nak mom moy tontu ki nga xamantene mom mo moo jiiteel gogu nonu ñu gën ko wax ci Richel Waye Mendi mom nak gannaaw bu mu joxee ay kàddoom manam bu mu joxee ab speedam ci li nga xamantene ni mom moy opening event of legal year manam muy ndaje bi nga xamantene ni di nga koy def at bu jot ah, moom nag gannaaw si biir waxam bu mu waxee ne ah, moom ah, ñoom ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy yëngatu si wàllu àtteekaay yi ñoom nag euh, nekk neen kuréel gi nga xamante ne nii dañoo taxaw temm euh, pour rek euh, yokk seen doole ba nga xamante ne nii gis neen réew mi mu mun a dem si kanam te it pour gis jàmm ak jàmmaarloo fii si biir réew mi ba pay wax na it soo gisee li tax ñoom ñuy dàqalu li nga xamante ne nii moom mooy youth movement maanaam mooy kuréel gi nga xamante ne nii dañ fay dajale ay ndaw dafa indi xaajaloo ba nga xamante nii ñoom ñeen ñu ko sol sos ñoom ñu ngi ko sos rek euh, pour seeni boppa euh, gannaaw bu euh, Rich Halway waxoon lii si ndaje boobu noonu waaye ba tey it ki nga xamante ni moom mooy Amat Ba moom nag dafa oot xibaar yi Euh, pour rek euh, tontu ki nga xamante ne nii moom moo wax ay ka ay kàddu yi nii euh, ba tey amal ba na ne Gambia constitution bi maanaam sartay réew mi moom nag moo joxe li nga xamante ne nii moom mooy freedom pour ku nekk mun a sos association am waaye ba tey moom amal ba wax na ne kuréel gi ngeen a xamee si Gambia Bar Association ñoom nag yaakaaruñ si yaakaaroon si ñoom pour ñu taxaw temm pour aar. Euh, pour ñu taxawal ak ba pare di aar euh, li nga xamante ne nii euh, moom mooy sartay réew mi waaye ba tey it moom Amat Ba wax na ne ne waaye it yaakaaruñ si ñoom pour ñu jóg di ekkati ay kàddu di ko jëmale si kuréel yi ñu gën a xamee si youth movement ba tey it Amat Ba moom nag oo ñi nga xamante ne moom mooy Gambia Bar Association bi. pour ñu génnee seen bopp parce que li nga xamante ne nii moom mooy far faral ay pétition maanaam di faral ay pétition euh, wala pour ñu taxaw euh, temm pour euh, taxawal li nga xamante ne moom mooy sartay réew mi a faral political moom mi Amat Bah ba tey it nii moom mooy appel gi ngeen a xamee si moom mooy constitution bi wala euh, ba tey it moom wax na ne ni gars yi euh, soxla neen li nga xamante ne ni moom mooy tontu euh, si kuréel googu noonu ba tey it moom Amat Ba wax na ne ne moom dafa soxla li nga xamante ne moom mooy tontu pour rek ñoo ñu xamal ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk si Gambia bi ndax ñoom dañ fi taxawal sartay réew mi wala ñoom daal dañ taxaw fii nii pour falak li nga xamante ne ni moom mooy political party ba tey it Amat Ba wax na ne ni Euh, ñoom ñu ngi yaakaaroon ne euh, kuréel gii nii euh, nekk na kuréel gi nga xamante ne nii ñoom dañuy taxaw rek temm pour taxawal sartay réew mi comme ni ko gars yi defee woon si atub 2016 waaye ba tey it ñoom den war a aar li nga xamante ne nii moom mooy yelleefi Gambien yi maanaam yelleefi citizen yi ba war a pere pour def li nga xamante ne nii loolu la soxla ba tey it wax na ne ni su fekkee defuñ lu leen leen war euh, ñoom nag euh, dinañ daal di jël seen jéego bañ mun a dem euh, foofu sa néegu àttekaay yi moom Amat Ba moom moo gaaral kàddu Point Newspaper ñoom ñoo taatal xibaar bi. mbokk yi di leen jaajëfal seen déglu bu rafet si déglu bi ngeen a déglu xibaar yi lëmba réew mi ba tey it di leen dégg ngeen indoog jàmm di leen dégg dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.